mënuñoo fexe ba liggéey ah ma ñëw tàngal sama café gi mënu maa fexe ba jaay ko xoolal lii xam nga ne lii lii jaaduwul waaye nag naa xaar damaa dëgër bopp waaye la ma samay bàyyi waxoon boo ko defoon kon ba ndëg ni maa ngi ci sama saret ba ma nekkoon waaye nag yàlla baax na naa toog rek xaar yàlla yàlla baax na di laa dinaa jaay yàlla rek laa yaakaar dëkk bi métti na métti na tar na métti na tar na ngelaw ah man de dinaa ñibbi sama kër yi moom damaa dëgër bopp rek waaye sama bàyyi la ma waxoon bu ah yàlla baax na loolu mu nekk lay dëkk fii dëgër na de ma ngi ah, dëkk guy dox kafe rek leen mën a tàngal day dox day dox ba guy dox ah. day dox ba guy dox am na jar lépp la am ah? wuy ma foor na foor na ñaari kilo suukar laa ci def ak kilo jar yaa ko wax bu neexul du ma la fay nag. mos dolli. mos dolli. xoolal ñu fuure rek. ni ngeen di def rek di di ñëw di segg seen yii nii ngeen di jaar bu baax. café gi de boo ko mosee dolli. café gi boo ko mosee dolli. café gi nii xormet na de. la neexee. lii nii la neexee café du fort day xaw a kii tuuti boo ko naanee nga am loo yëg sa yaram. waaw noonu la neexee. <laughs> yow loo ma jaay nii ah ci kafe bu ñu am na xaalis ngeen jugee dëkk ba ñëw di baaxal rek di jaay nit ñi nit ñi di feebar ak li lii leen kafe gu neex ak gu baax yow lii lii lan la. kafe la lii xorme nii kenn xamul ban. kafe la kafe la wuy ma. xamal lan la. billahi doo ma yeb da may fay de. ma ma fay la yow Mamadou Faye. gënal le gënal le gënal le yow kaay fii ma duma la léegi. li ngay def waaw xoolal bu jaay ba kafe gi dina ma neexal neexul ba pare ba pare mu ñëw fii naan dama koy fay du ma la fay dërëm. yow doo ko fay la moo sa yoon xanaa ñamoo ko la moo sa yoon mais du yoon la moo sa yoon taamu seen jikko bi quoi bu ñëw jaay fa ngeen ko jéem a la moo sa yoon doo fay da naan kafeem da nga war a fay wax na dëgg da nga war a fay wax na dëgg li ma jaay neexul ma tax ko neex laa jël da nga ko am jar laa jël da nga ko am jar laa jël da nga ko am jar laa jël xana xamone ne li baaxul moo nga war for fi public la mbolo fi nek ta xana xamone bu setul rek wér gi yaram mënu fi am bu don tay ji fi ma nek ni dafa tax kon do ñew ba fi tok heure mo pare dama koy balé xam nga ma lo foral nak foral lii do ta nga di ko tey moom wax nga wax wax wax nga ma kàddu dëgg moom wax nga dëgg de dama koo waaye nag dama koo xamee wutoon noonu dama koo xamee wutoon noonu. waa noonu la nag. sama mag yi laa seet fii li ma fi indi loolu la Ibra Fall. Ibra Fall waaw te nekk marière bu mag sax fii. Ah, ah marière la. waaw bu mag sax la fi sax bu bu mag a mag bu ngande. waaye kooku ku mu war a doon waaye Ibra Fall. Ah. ma dëkkoon guy dox ko. ma dëkkoon guy waaw sama maga. moo yàbbi ween jox ma ma seex. ah waaw loolu xaw ma ko woon. sama maga de. Eh. Ibra Fall moom na xam naa këram. Ah. bu baax danaa la fa yóbbu. xam xam naa këram bu baax a baax léegi na xam lu mu bëgg mooy nga jóg ñu faa dem man na son naa sama café gi bii laa damay dem rek wàññi ko waat. nañu dem man kay loolu rek laa bëgg sama mag gi laa bëgg a gis. moom la nga bëgg a gis. moom kese laa bëgg a gis. eh téyel ma portable boobu. nan xam naa kër gi taxal ma téye la nii waaw léegi defal ndànk looy fekk looy fekk sa lu nii ah defal ndànk kii lu mu def nii caayam ji eh, ay waaye xoolal nit ñi may xool ak nit ñi doon def wuy ma eh eh wuy ma xool ma xool ma booy dox da nga naan da nga xaw a kii tuuti mais li doxal eh. <laughs> déedéet waaxuñu dem doxal déedéet bu bu xun ma la Karabaya, if you don't daha mı for bu ma defee tuuti a moom. yow day nelaw ñu wéete ko. waaw damaa doole du ma jël wéet gi du ma delloo loo xam ne ba tuuti. loolu ko. démb bàyyi ma rajo bi. solo. maanaam maanaam. ah wa yow. ah. ya sa tànk yi gën a oyof nag nañ di wax de. waaw booy nangu naa la. na ñooñu doomu jëli dégg turu baax. màgget yow gis nga réew mi ville bi soit boo fi nekk di konkool dañ de. waaw sama gars yi ngi nii daa mel ni sëñ bi daa wër. waaw la nga xamal bu xotti lii. man sama pël bi moo tax a laa jëmaat ànd ak. tey tey ko nii waaw ñu bëri. affaire bii dafa yéeg de bu dem su yotoon na. ay kañ àll la sama nga ko. ah bu nekk dafa def laay bu nekk ñaari as jël ñaari wala wala lool de man kii li mu wax yow yaa koy xam yow ma xam naa ko ah dana na xamane bi ma ngeen def attention si moom nag kii mooy loolu de pël li ma la wax rek pël xool leer laa leen wax dégg ni pël rek doy na ma jox ma laa xam ah fi jël naa ne kër moo dem soo ba léegi maa ngi mooy eh, mooy jënd lépp. nee na moom jënd lépp. ah tout foofu kay mooy lépp. non non ànd ak ah. carte sax. aywa di foofu foofu. non non lépp dama gën a gaaw. aywa jëli tout eh, eh, jëli tout. waaw tout la jeex na. te waroon na xaaral ba kii dox. ki xamul dara. waaye yow xanaa tur bi yëngul nii. te andaay dara li may wax dégg nii booy. waaw xam nga kay ñu ne mën a kàpp. dama leen jàngal ba sonn. ma ko dee man ma xool garam place yi. jàngaloo ñu dara. doxal yow bii manqué booy jaay. doxal jaay la fi manqué ah. jaay la fi manqué waay. damay wax dégg nii seen dëkk lu yomb nii. bàyyi bàyyi doxal doo gisee. bàyyi man maa rey bàyyi li waay yow li may wax dégg nii. mi leen di waxoon Caayeen yow ñaata nga yore yow. Caayeen ma. bu dul woon caayeen. Caayeen ataaya. ah man yor naa fi kan di toll nii yor ay ay ay ay saafara yor ma de ah grave magat non mais ma ko non ñaan ma la woo déglu ma bu guddee bu guddee ñu ñëwaat fii ñaan ko bu guddee waaw dox leen ba lii dox leen dox leen ba kàddu gi ñëw ñu doog a lijjanti seen dugg quoi mooy pour xam naa ne ku mën ataaya la waaw pour doxal fii wàccal fii misaal doxal waay waay am na yow am na ngeen booy ñii dama leen tàggatee wàccal waaye ah yow looy yambar yambaru ni yow dama laa formé ba soon miin boo xamee pël na la a nekk naan waaw yaa tuut man de booy pula man man ni booy pula man mu man ni mu jëlee tout laa xamul quoi ah monsieur loo jëlee tout ah tout mooy rey waaw tout reesay ko waaw man noonu du waaw yow rek yeggoon yi. moom rek boo bëggee jox sa bopp def comme Dakar. non xoolal duñ mën a composé. an daal li ngay wax yëpp dafa bëri su ma nekkee nekk Lingom ñu forog ànda. Ah, Dakar ak Lingom. ma yooyu ah, boo dofee. doo gaaw a bokk doo gaaw a boo naa ni dof noonu man ko ne ne boo dofee doo mën a nekk màgget. kon urus la nekk yow kon ay nooy di sagawaale. kon oo wata. ba ma oo oh, wata ko faral waaw koy waxal ak ndaw yi moo door ku mooy ci tat dafay teppee ko ba war nga nekk nii dégg nga dama la wax xam lu ma leen yëgal ah yéen xam lu ma leen yëgal yéen ngeen yow yow la télé do sama dama nay ay ay guddi mooy naay guddi mooy naay xamoo dara waay yow kii da nga naan naay xamoo luy naaj yow ah yow ko ci di woote yow seul man ay naay do yow ay naay da nga mo do nga nekk yow yow misel bi sama la gën nit quoi ba naay dara ki day mer la ni dawal naa añ jot na de jot na nañ ñibbi parce que fii moom kër patron añ bi dafay gaaw non nañ dem rek yow amul problème amul problème kii ay dégg xaalis bu bëri la ay nagu fële ñëw fii xam nga yàlla def ko mu dal sama kaw moo xam ne jekk na soo poche kii moom kii moom glacé ko si def xam moom du yeewu kaw kaw kaw kaw kaw ay ay night maa yooyu ah, tee bi ñu doon nañ dëgg de damaa carte carte boobu sama buuti sama di ok haa nayi déglu ma ban xoolal bële la ratatata gi bi nga bi nga nekk talu ma ko gis nga man man instant bi damaa sonn damay dugg ci bi xam nga dal récupéré yow na boo mënee dressé xam nga naan air bi nga xam oh, yow yokkum yokkum la yow yokkum boy nga bële ku ne ci bisam bu xonk nii lii la wax ci ci góor yi dëkk dox rek kenn dëkk ci ngor koo ci àndal ma yaakaar ne uh, moo moo moo la tane rek ah mu mu moo la cëy cëy ma sukk waaye xaaral man sax dégg naa noddu gi te yaakaar naa ne kër ga mu léegi ñëkk koñ xaaral ma ñëw def nii marakkala ay fajar ba gin ba sabe ba bi sama xarit bii da laa àndal ne xam na kay sant bi la sant rek nga sama la yow yow. danoo yàgg lan la yàgg si biir ba danoo yàgg ma ak moom. waaw ay sama rakk ji ah lii dama naa la. waay ma waay man waay xam nga ne fuuf yow waay maa la fuuf. ah ay wax bi egg si la gën gi. so waa ji yegg si waa ji baax na. lii moom xanaa mooy yëpp ji fi ah. ah waaw yegg si leen. Eh. yegg si leen loolu yëpp yëpp naa ci. moom xanaa lii moom moom moom. yegg si leen yegg si leen ah yegg si leen. ah lii moom mooy lan. Eh, tubaab bi dina leen di ba. bisimilah dugg si la. Eh. ba sonn leen ci moom kay moom xaw naa climat moom xaw na maa sonal nag waaye nag noonu lay demee. ah àdduna moom dimbalante rek moo fi am. Ah, ndimbal rek. ah dëgg la waaw ndimbal rek ndax maa ngi woon ci tool bi di jaay kafe sax waaye moo ko siiree ah laa laa tëj laa xam ne mbokk teew la li boor bi bëri bëri bëri ay lépp ba ma ko siiree damaa mel ni tax ko sama saw. maa moom nag ñoo bokkoon nekk buy dox waaye nag sant rek ndax ñoo ko gisee. sama xol dafa sedd guy damaa kontaan. moo tax bi ma déggee sa kër rek laaj ma ne ma man daal dafa am sama benn mag bu fi nekk bu naan mëreer la ma ne ko ah mu ne ma ne ko waa kooku kan la war a doon xam ne yow la. waaw. xam nga kan bu kii sax mooy tarasin surtout kii soo da xulle mooy nayam. soo da xulle mooy nayam yàq mooy bàyyi. Abdoulaye ko jëmee la. soo da xulle ak Madaal yàq. wax nga dëgg muy doon. dëgg la dëgg la waaye nag. def nga lu baax. dëgg la amul solo ma ne jógal may sa bàyyi ci ndox xam naa maar na lool. waa bi kii de bàyyi nga noonu rek seetaan. nga rek kan moom. jàll la yomb naa mun la. dëgg la day gànnaase rek ñu. waaw borom baax la rek daa baax. yow moom bàyyi mere na. lu tax bàyyi mere na la de. parce que yéen da ngeen ñëw réewum taax rek taax. ah ñun dañoo ko tax ñoom koy ñëw réewum taax rek taax yow kañ nga gën kañ nga bëgg di yónnee am du am am dund te xam nga ne. nawet ren bi yow xam nga ne baax na. waaw wax ca tànk yi. yéen yéen bi jaar nañ fa. tànk yi dëkk suuf. lii du ma ci teg sama tànk ci suuf. doy na waar gisal rek. bu ma joxoon ndox bii de lii xaw ma bëgg a yàq sama bëñ yi. indil ma dama ca ndaare la taxal ma fa. ndax ndoxum ndaare la ndoxum sayaan. ngeen gan boo leen dul yàkkale. waaw daal kii maa li ma xeeru nii. man la ci. bàyyi la sa bàyyi la bàyyi la moom muñal ko rek. yaa yaa lii nag xam naa ne. Ah. ci ci ci ci ci la dagg ci fas la dagg def ko ci boppam bi ndax nag waxu mu dindi la sa yaay. kii sa doom la. waaw xam nga gis nga ko yéeme. daa yéeme torop daa eh, eh, nga def. Eh. doy na waar doy na waar. na yàlla baax doy na waar waaye nag euh, maa ngi ñu egg. te te kii ba te te poids ba. doo xaar añ. amul solo amul amul solo ndax man lii rek moom waroon ah. te def naa ko mbokk la ku baax ngeen billaahi ba ma ko gisee sama xol daa seetlu guy dafa seetlu guy léegi nag kafe la ah. maa ma bàyyi ca koor ah. te damaa bañ ko xale yi di ko daane am xale yi seen kër kër yi léegi nag maa dem kër ga xam naa beneen yoon dinaa fi gis non dinañ xamante dinaa fi ñëwaat yaa ngi si port bi maa ngi si port bi waaw dinañ xamante incha allah parce que xam naa ne lu baax moom lu baax su soobee ak bu ma ñëwee. Ah. dinañ waxtaan. amul solo amul solo baax na maa xam naa ne nit nit bu baax moom sa papa moom. xamante ne doon kóllëre trop trop. du foofu nga nekkoon foofu moom ngay liggéey. waaw waaw waaw waaw waaw baax na waaw. danaa fa waaw baax na jërëjëf lii moom xanaa sama am pour nga jox ko sama bi jërëjëf waaw lii lii lii ah. saa bàyyi ma ko jox jox ko. Iba Fall bi dëgg la dafa baax ci am kii nag. yaa mu kii yooyu. la fee nga fa xam nga loo fa doon def tax. dëgg la waaye yow man man nga am doon tax ndax yow da nga fàtte tax yi. xii la xii <laughs> nga. baax na nga baax na waaw soxna si maa ngi waaw kii daf fi des. si kër kër. man sa baay la. baax na na xaaral ñu. waaw incha allah. léegi la waxtaan bi lii la yow soxna si si yow kii Ka dëkk la jógee xam naa baa yebal ko si dëkk bi pour mu liggéey si man nag dénkuma leen dara lu dul ñetti kàddu ni ngeen may téye si kër gi di ma topp si kër gi noonu laa bëgg ngeen topp tooyee ma ko ndax euh, xam ngeen réew kaw réew taax bokkum booy doog a ñëw il faut ngeen comprendre gis nga benn xoolal nu mu teg tànk yi nii si kaw fële te lii di jar lu bari xam nga lii kenn mayu ko si marché mais nag moom du ko gisee foofu li ma bëgg daal mooy ngeen téel ma ko seen loxo kii nag doomam moom doom la kay def. li ma jur moom jur na moom la jur bon bàyyam na ba léegi dama bëgg nag yow yow nga déglu ma li ma lay wax dëkku taax ak dëkku kaw bokkum parce que kaw ba dara amu fa lu dul foo ba minuit deux nga tëdd mais fii booy tëdd ay deux heures xam nga reen xatit moom la lekk dama bëgg nag ngay tëdd heure bunt bi gis nga ko dañuy too guddee dañ tëdd dañ ah. fii tooy dox xam nga agresseur yaa ngi koy baat boobu loolu la laa la dégg te nag wax bu bare bëgguma ko si ndax damay bëgg a àgg jàkk ji noonu dégg nga ñu ngi doon noonu tisbaar yow soxna si dégg nga kàddu yu ma la dégg si moom. Mm, nga jàppale si yow tamit def ko comme baay bi rek ndax maam. léegi nag bu baax man na maa ngi dem jàkk ji julli ci tisbaar te ñëw dégg ngeen. waaw waxtaan bu baax. waaw dégg fii daal def ko comme sa kër boo amee loo xamante ni bëgg nga ko dangay woo Monica mu defar la ko. wala man mii sax loo ma sant dinaa la ko defal dégg fii daal def ko comme sa kër te Monica nii sa doom la. man kay cere bëcc cere bëccëg rek. déedéet ñun xamuñu ay. cere bëccëg cere bëccëg rek daal man moom dong laay def. luy cere bëccëg luy cere bëccëg cere nga nga def ndox nga jël xorom sotti ci seeya. sotti ci moom laa doon def ci dëkk. ah ñun xamuñu loolu. boo xii loolu moom ñun loolu tam xarit leen si xam à part tam xarit passé na loolu moom wax dëgg yàlla. loolu dégg nii rek da nga er mm. er er sa bëgg cere bi ba tey mu yaa koy def te foofu moom ak fii bokkut. fii nag amu fi te yow sa bokkatu bu nekk dina la looy bokkatu ah. ah mooy dem muy xasal. diir yow kañ nga dégg sangu. barki démb. laa ilaaha illallah may wax mu naan barki démb. ah yow yow nit naka la mën a toogee benn fan ah sangoo yow booy def loolu léegi na la. ndox mu ndox mu bu baaxul ci góor nee boo dee sangu bu sa ndaal yi da ngaa am ndaal da ngay dee sangu mën nga bu nga ciy sangu benn yoon. te bu pare nga dem ci wanag ba saaba nga fa njàmpe nga fa ndox mi nag da ngay egg rek ci di sangu dégg mu tiim sa kaw nga sangu ba set. boo génnee diw bi yëpp Monica dina la ko tegal si kaw nga diw dégg nga sos sa set bu ko defee xale jigéen ñi la buñ la gis buñ la gisee dinañ la lab sax. <laughs> waaw waaw xale jigéen ñi waaw waaw loolu moom baax na dinaa ko def. def defal loolu xam ko def waaw baax na baax na demal dinaa ko def baax na. boo jógee nag ànd nag Monica mu wan la fii daal def ko comme sa kër. waaw baax na boo jógee nga sangu ba set sa cere bëccëg yi ngay wax ak. ak gis nga yi nga wax indi ni sax jar ko ci woon yi indi moom jar ko ci woon waaye moom waaye ah, doxal ñu dem bureau. teel ñu egg bureau. doxal ceeb bi daal di. waaw rek ceeb bi karoo moo ci yow. waaye ceeb bi naa toj yow lii di ñeenti carte. waaye lii la baataata carte yow Maguette Maguette yow. waaw dàq naa la benn. déedéet déedéet. dàq naa la benn dàq naa la a waaye yow. dàq naa la benn waaw Maguette soxna la waaw booy ana Pulo non pour le mu ngi kër ga mu ngi préparé. préparé xam nga booy booy bi fi newoon xam nga kii Abdou Nguer. ah, ah, ah waaw Abdou ah. moom la war a ndox kër xam naa ne fi mu mujjee Poulo di neex. eh non c' est que Abdou Abdou nag. Abdou dafa ko xam naa ne Poulo balaa may góor Poulo dina ko ko Abdou ci boobu Abdou. xam nga andi andi père bi. waaw doxal mu kaw maa rey wàccal kay. ku may wàcc waaye yow. fil daa boo teb la ñu dem bureau. fil daa wàccal fil. tegal. waaw ne yow da ngaa jébalu ñu xëy di may des. man dama yàgg di jébalu sama sëñ bi rek di mel lu mu samee ci ma. Fanjaay mooy tegaloo dem lu mu sari waaw kii Caroline Faye Diop yow da ngaa fi dem yow ka Wah, wah ñagal kan di ko waaw waaw eh boy tey rek tey rek da ko noiro de ay ay loxo di ay weer kii xamul dara waa ndax doo wala nante quoi kii kii ngay namal nante xamul dara xamu ko man sa hada ni ko lella dima tang sa dima tang dum bu sa wala go tang tang fan way eh way way yow yow en yow ah yow en ni wana di ngeen te fi ku ñew jël

place bi di nga ñëw nga teg ñu naan loolu def loolu def fa doxew waaw dafa nang ba ba kadeng ngi jël seen vidéo tëf di ten waaw doxal téléphone saf de doxal li mu jaay dindal ma ko saf de bo bo ar bo pare ngi la jël waaw bes na na ñaar xol de nga ko ay sama dal yi mënuma ko ah di na ko dese mu jëb mariage waaw eh mi mi do ay mariage waaw xaaral tuuti sunna mariage wana bul fa de crème mi na nga ko fay ah, ah man yoru yoraani xaalis dik dalifor tëf fan Ndiaye mooy toggal déglu Moussa Ly doxal karaw ñu dem bureau fanweeri a ngi nii ah yaa day tebbi. laay laay laay laay woy Chama Ndeye. na gaaw damaa mel. Eh, eh, eh, as nga damaa ji dafa damaa ju. waaw yow kii bi def nii. daal salaam laal fii de. chef waaw booy Max. waay booy Max ay doxee booy yaa la. yow gàdde ci wax booy acca bo xale bi da nga ko xam xale bi ah, baal ma laaj ko adresse am kii la Paa Iba Fall Paa Iba Fall waaw men men Paa Iba Fall Paa bu dañ ko fay buñ ko fay borom du nga mën a dokaan di bàyyi leen ko sama loxo rek ma ñëw a ah. eh Poulo xaar ma ñëw a ah. eh soxna si morfale faradir le boy boy Poulo xaar ma ñëw rek yow boy

nu ma la koy waxee. waaw ma ko may dem ma la koy waxee soxla mu jiital du ma la ko wax sama bopp. war ma pes man taw. waaw booy wax ma loolu. jël taani booy jëlal booy. waaw dara no dama bëgg moo tax ma pes ma. dara bëgg waaw waaw wax ma loolu. booy bi dana ne nii ba pare la waat nii. nii nii nii. ku naroon nangu lu la def nii. explication yi mooy may noonu boo expliqué il faut nga def nii booy bi xam nga booy bi américain la gisoo muy def nii. booy xoolal jox la nee na ma daal suba. waaw wax ma loolu. mais wax dëgg booy lii nii nii nii nañ ko nii ak nii. ay def nii loxo xam nga rek booy xabaar de Bardé su Bardé dina dina def dina def. booy déglu waaw loolu jeex na comme loolu xoolal ma ma ma boy la yow baatal père bi di dem. duma ko. duma barki yàlla yow bu ma la jàpp. yàlla ci dóor dinaa la dóor bu nga bëgg. sa baat mel nii moteur bu toj woon ak yow wana morom ma il faut les fermer les pouces am na bay il faut les fermer di leen daje di nga wér di leen daje tous di nga wér déet xam nga laa bëgg nga jéem ko man ko. kii sama doomu ma bu ma ko jëlee bu ma ko jëlee fu ma ko jëlee. déggoo li ma la wax ba léegi de dama bëgg nga yow bu fekkee dana yow niroo ciy jug rek donc ma jug parce que keroog ñëw naa fi xool naa bu baax a baax a baax mais nag ne bala ma ciy jël benn solution dinaa ñëw ba ci yow laaj la ba xam wala xamal la yow da nga nekk ci gàllankoor te gis naa ne booy bi daf lay dépasse mais xam nga naa bëgg nga am loo dundal moom nga fexe koo xam ko rek am loo dundal ko defee rek dafay ko amul ragal wuy bu ragal maa benn affaire boo ko joxee fexeel tàngaay rek kàlla ji mel na ko boobu. yaa ma dégg soo ko defee dina dem ci non sama ji jaar quoi yow naan teel man daan naa la naan la dëkk ba xam la yëg soo paree dem sa yoon. Música não, ci yoon o sama nekk bi moom não tey ñëwagul. maa ngi Não, não ñëw na. não nga. waaw. mbaa nga jël. não bi deux mille laa jaay ah wante nag não na na nga ko togg rek ba mu neex. sa papa ñëwee nga ni ko damaa génn ana jiili nag. day ataay. maa ngi dem te ñëw léegi. foo jëma ji moom soriwuma. foo jëma ji daaw. damay seet di sañi natt bi moo taay bi. natt yi leen. natt bi nag jiili man maa ngi leen te ngeen bàyyi seen ngeen waxee ngeen naan natt jigéen buy sëy ci kër gi na war a toog waaye jël sa tànk bi rek di génn di parang parang yi loolu du yoon toogal ci kër gi. waaye da ngeen di jël yéen di génn rek di dox rek loolu yorutul sëy toogal ci kër gi laa wax nga naan natt. ji li natt laa yore te natt mbootaay bi moom ñëpp ci man lañ ko sa. dégg bu ngeen attaayee ba pare ngeen naan ko jarul nga may xaar. Ah, dégg waaw. yéene marché parce que bu ci defee lépp du yéen du yéen du nelaw fanaan waaw mu def xaaj bi def xaaj bi anamu nit ah yaa ngi foofu di bale ah yow de am nga sens fekk si léwul am sa ataay bi demul ah. ataay bi daal moom dikk nga fekk mooy xel rek. kenn bi dafay toggee ataay moom. mbaa neex na. waaw neex na moom. waaw bii de dama ne ko dama ko doon defal sax moom ca dëkk ba. baax na xaaral ma di àgg àggale deuxième bi. waaw. a nekk papa bu ndaw ba sama nga xam ne sa papa dafa dugg indi sama mbaxana sama mbaxanam bàyyi des na lu nëbb Thank you. laa jógee nangam han nangam tay lay mucc te tay lay ngir di ba sànni ci kër gi rek man dong xalaatuma ko jiili yendalul fanaanul yaat moma nuro 659 say nga may wax ne jiile may wettale jiili fu may wettale lenn da xamal na la wax bu bari xam nga lu may indi si febar bo xam doto jóg da ngay wañ sa wax buma febaré nga ka fajj ma yow mi ma indi jëlé sama kër bàyyi indi ma fi buma febaré nga fajj wax ma loolu sax ana moni manit mo ngi ci bir monit de fan yi day tëdd rek ak di jóg xaw ma nag lan la waaye tëddam bare la de. feebar dong la def de moo tax mu tëdd. saa yu ma nee fekk si kaw laa waaye nag war nañ ko xool. tëdd tëdd tëdd tëdd guddi tëdd bëccëg ah sama xel tey na si. lépp luy indi ay na ko mooy daal lu si mën di am di nga ci xam dara. daa yow nag dem jàkk l'essentiel daal balaa maa ñëw naqari deret naqari deret naqari deret ba mel ni maar dee taalib lii moom jàmb la sama nijaay moom naqari deretam bi mënu koo bàyyi may wax mu naan Monica dafa day tëdd ko jóg rek lu ma lay wax nii mu ngi nii di wàcc bu buy wàccu nag xanaa nit du feebar ah man moom jaaxlewu ma rek. wante nag baax na yàlla baax na lii moom dinaa ko faj si nii wala si naa ndaxte sama nijaay kat moom yëppam yi mu ngi may bëgg a ëpp loxo bañ a fen du dara dama sonn rek sa papa fii la jógee léegi sa papa lu muy seetlu man duma ko seetlu daf ma ne carrément naa bàyyi bi subaat jàmm ma yóbbu la hôpital hôpital nag du ma xaar ba suba du xaar ba gannaaw suba léegi la ñuy dem hôpital ba ma xam lan moo nekk ci yow su ko defee ma ñëw wax ko sama nijaay loolu doomu laa xam nag xam dara ndax mu may ma jàmm doom ji moom a tax a jóg ndaxte fan yii yëpp mu ngi tëdd ak a rek lu mu lekk nag wàcc ko. man moom jaaxle naa si moom lool rawatina nag papaam. ba tax na mu ne ma nag naa ko fi indi. soxna si yow noo tudd. man Monica Fall laa tudd. Monica ñaata at nga am. 23 mhm. bi daal ma metti des fois ma metti. loolu kañ la la faral di daaneel. wàcc moom yàgg. non non non non. lii dootuma dalaat noon naa raw naa man dootuma noobaat noon naa noon naa lii dootuma dalaat sawaay noon na man dootuma noobaat ndaw si ko gisee bi ko gisee defal na ma teranga am ngor ju mën na nonna nonna lijo tumangala nonna rauna mando tumanamba nonna na lijo tumangala demna baywa ne do tumangamba kër bayam trop mhm. so gisee ma ñëw fi tay ji mhm. lool mo xam ne ma bëgg nga dem lijeenti ji ko mhm. bo xolé bes bo xamne ne nga dem lijeenti ko ndax man wéet naa trop fi mu toll nii ca kër ga lool daal mo fi yëkëti tay ji mom ah yow koy dem wax lu biag na. ah moom de lool moo tax moom tey ma ñëw fi mom ndax. fi mu toll nii wéet naa trop man kessé ma nek ci kër. waaw daanaka yow lool bako ko waxoon du yàgg. ah mom moom ah? fi mu toll nii jaaxle na ci de wax dëgg man na naa suma liggéey sax dem ah timit ah waaw lool mom dëgg la mom